ICS euh, dafa nërmeelu woon bi président Macky Sall jotee ci réew mi la ko dundalaat mu doon suñu moomeel Sonacos bi fiy tudd président Macky Sall moo tax ñu téye ko mu doon moomeelu Sénégal jaaraama son excellence monsieur le ministre mbay mi ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yeeg goxaat yi ñi nga xam ne ñu fa la ñuy bayee ñoom xam nañ xam nañ ne tey ki fi taxaw sànq di naan président Macky Sall ay mbaam la joxe ak saretu mbaam la joxe saretu mbaam dafa am solo ci mbay mbay dafa doonoon loo xam ne ñu ci ëpp ci ñun ñi xamut liy doxal réew dañoo jàppoon ne liggéeyu ku ñàkk pexe la président Macky Sall moo ñëw nit ñi xam ne mbaykat mooy suqali réew loolu dafa war a leer ci seen bopp monsieur le ministre lii di DPV ISRA DEMER horticulture DEA ANCAR ak ñeneen ñi nekk ci ñoom lii ñoo ëmb mbay li ngeen def ci mbay mi bari na waaye lu mu gën a bari gën a baax parce que mbay mooy suqali réew monsieur le ministre opérateur économique yi ñu fiy tudd dañuy jël seen alal def ko ci di topp pour ñu jox leen ñu liggéey parce que nag réew noonu lay tëddee opérateur économique yooyu monsieur le ministre des finances président nee na ngeen jàppale leen jox leen ndax ñooñu ñoo tax kenn déggatul bon impayé nañ leen dimbale ñu jox leen ndax monsieur le ministre suñ taxawalee prix bi ne 280 loolu prix plancher la président Macky Sall dane bu kenn jaay lu yées 280 bu la neexee jaay 600 ñun boykat yi xam li mbay di jariñ dañuy jaay kilo gerte lu ëpp 600 xam ngeen ko xam nañ ko. parce que mbay gerte moo toll foofu sëñ Abdoulaye Mbacke dane woon tànk que kilo gerte jarul juróomi téeméer gerte jaragul njëgam te danañ fa yegg monsieur le ministre. soxla nañ ngeen jàppale DMER ci suivi ak évaluation matériel agricole bi ndax coow li bëri na ci dotal leen ko des moyens mu dem def suivi et évaluation des matériels agricoles distribués monsieur le ministre pour ñu pour ñu jot suñu souveraineté alimentaire dañoo war a am un bon capital semencier accès aux intrants bu bu gën a baax président mi ngi def mais na gën a dolli matériel agricole maîtrise de l'eau un bon capital humain dévoué mooy ñu gëm ne mbay moo mën a jàllale réew monsieur le ministre ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal président de la république waaye ñii nga xam ne ñoo nekk ca DEA DEA de passage ñoo ngi lay nuyu ñoom ñi nga xam ne ñoo gérer facturation bi baax na ngeen defal leen euh, prime de responsabilité ndax boo defee benn programme boo xam ne 100 milliards la nga jox ko nit mu tiim ko war nga koo mën a satisfaire ba nga xam ne kenn du ko mën a corrompre maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam